قد أعاذني الله منه وأعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفتاه وهب لي وارزقني بكون الآن ضيقي أزلا عاجلا بالبشر مع مرد حتى أقيم لدين الله أركانا يسر جوعي لطوبى واحمني وقني أذى الورى وتطيب لسما إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليروب مشيكه بانا أجب وسلم بسلم حسني محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu ñëpp fu man di nekk rek ci àdduna bi diñu diñu di seetaan waxtaan wi di ko déglu waxtaanu tey bi moom xutba tu tuum xutba tuum sa sin moom lay doon xutba tuum sa sin sëñ Lam Julo moo bind téere ba moo moo moo ko bind tuddee ko noona waaye danañ sukkandiku nag ci waxi sa sëñ Cheikh Moustapha jële ko ci mbirum loxoom danañ danañ danañ jële it ci sëñ Mouhamadul Amin Baara moom it jële ko ko ci ci mundam danañ jële it ci sëñ Cheikh Fatak Diop danañ jële it ci soxna Nafa Samb ma Diop xam ne bokkoon na ci ci umahatul muridin yi kon yooyu yëpp kon suñ ko dajalee mën naa am kon waxtaan wi dana nasu xutba tuum sa sin dafa am solo lool mooy sëñ sëñ Tuubaa xutba bi bi mujj wax ak mbooloo mi ca jaareem muy tënk boo xam ne bépp murit war na koo diglu wala xam mbir ma xam ne kat ku doxiwul ca loola doxiwoo ci li sëñ Tuubaa bari doon kon ñu wax ne kon kat bisu gaaw fukki fan ak juróom benn ci Tamxarit muy muharram 1346 ci ci gàddaay gi ginnaaw ba sëñ bi jullee takkusaan ba noppi wax la mu laaj ne waaw ñaata fan la lañ am ci weer wi ñu ne ko day fukki fan ak juróom-benn mu ne kon day maa ngi leen di digal ngeen dal te dalal seenu njaboot te néewal ci wër bi maa tukki bi daal di ne lu ci lu may xanaa lu mënta ñàkk rek ba ca suuf ga gàmmu ga kon ci mu ne bisu gàmmu ba ba ci sax mujj ga xam naa xam naa kon booba ma ngay junj xew-xew yi nga xam ne moo moo moo dara am nga xam ne kon yëngu bi kon dana am ba fee gàmmu ga xam naa ko kon ak dal dana jafe te muy bañ kenn di wuute këram xew-xew booba di am sa njaboot di jaaxle daal di di wax ne yéen nit ñi de maa ngi leen di dénk ngeen jaamu seen borom moom mi nga xam ne moo leen boyal ngir ngeen jaamu ko mu ne ñi nga xam ne nag suñu borom dañuy tënk nee na sëñ Lamin nee na mu jublu ci ñi nga xam ne mooy yëfar ya wala ñi nga xam ne seen bakkaar ya dafa bari ba mu téye leen a jaamu si borom xam ne ñun nee na ñoom ñoom jaamu wuñ ko ngir. weddi ga wala bakkaar yu bari ya wala boog bakkaar ya tax na ba mënuñu rafetal jaamu ga mu ne kon na ngeen topp ndigalul ki ki nga xam ne moo leen xamal ay ndigalam maanaam sëriñ bi nga xam ne waaw sëriñ bi nga xam ne moo leen di di xamal ndigalul borom bi mu ne kon na ngeen ci topp ñaan ak digal yi nga xam ne da leen di yóbbu ajana te di di leen bégal ci lu dul ak torox ci lu dul ak ak coono faaw ne kon nga kon war ngeen ko topp ndax sëñ bi nga xam ne moom li may digal lépp mooy li yàlla digal rek kooku moom topp ko ci war na na ngeen jëfandikoo ndigalam ndax ngeen texe te texe gi nga xam ne mooy texe bu sax adduna moom texe gi moom saxut ndax texe gu fi nekk nekk aw naqar mën na caa topp mu ne ko kon texe gi nga xam ne texee di duutu ànd ak moom mukk duutu nekk yi ginnaawam mu ne kon ci ak ki nga xam ne sëñ bi nga xam ne da leen di xamal terey terey kooka tere yàlla mi nga xam ne tere yi nga xam ne day joo day yóbbu nit ci sawara da koy troxa ëllëg da koy da koy taxa na sax nga xam ne duutu duutu bég mukk kooka day war ngeen koo nangol na ci war ngeen a topp ndigalam na war ngeen a moytu tere ya ba ba ngeen texe ci mucc mucc gu mat ga sëkk ak naflaay bu mat ba sëkk sëñ bi daal di wax ne aleykum bi taw jihi nasarikum wa wahamikum ila masatayni mu ne ko nag na ngeen na ngeen jubale seen gis bi ak seen yitt ci ñaari masala yan la mooy nga xam ne que li ma leen digal ci ngeen def ci ngeen xam li ma leen digal te def ko na ngeen xam li ma leen tere te ba ko na ngeen na ngeen teg seen loxo ci ci ci jëf ci li nga xam ne mooy li wéyoon mooy jëfe ndigal bàyyi yi tere mu ne ndax ñu loolu kat ci ci la ñu jiitu woon jiitu ci la ñu gën a gën ci ñu jëkk ña ak ñu mujj ñi kon ci jëfe ndigal tere rek ci la ku gën gën ci la ku torox torox daal di wax ne da ngeen góorgóorlu ci julli juróom loolu ñu ñuy fàttali sallallahu alayhi wasallam li mujj dénkaane bokk na ci julli yu juróom ngir kawe gu mu kawe ndax malaayka yi ci kuréel yi malaayka yi seen jaamu nga yépp la suñu borom tënk def ko ci julli ñee dañ taxaw rek ñee di surkon rek ñee di fiir kepp ñee di taay rek suñu borom boole ko boole ko lépp ci julli jox na ko wax sadaxa saraxe saraxe nag foofu dana taxaw ci ndax sëñ bi mas naa wax ci ab jataay sëñ Mansour Sylla këram a ngi fii ci faraasu su baylaat bi faraasu su baylaat bi sëñ Mansour Sylla doomi sëñ Moustapha Sylla la kër Moustapha booba dafa ànd ak bàyyam sëñ Moustapha Sylla ñu ñëw njaareem sëñ bi di waxtaane booba dafa dugg xale ba ba génn daal ne man day dama tukki woon doon yégal samay mbind te su borom ba ma demee nag dem na dem naa barsàq yow yóbbaale fa jëmm yi nit jëmm ji neew ci waa barsàq day yéemu nañ lool ndax jëmm ji fa yóbbaale mu ne ba ma demee ma xool ma laaj foofa la fa gën a foor ñu ne ma xanaa sarax ma xool ne kat sama sama nit ñoom maanaam léeg-léegi néewal nañ lool ci ci ci ci wàllu googa ma laaj nag sama borom ne ko dama bëgg nga defal ma ma ko ci ci ci ci maati maati maati naa loolu bi doxalamu na waaw ma ma laaj sama borom ne ko mu defal ma ko ci kafe ne mu ne ku tàngal kafe naan ko am yorub sarax koo ko jox mu naan ko am yorub sarax loola kon moom kawe gu sarax kawe moo tax si Sëriñ Tuubaa gasañalu ñu ko ci kawe kon mu ne kon ak ñaan na ngeen na ngeen fonk ñaan si si si leeral na ko ci ci waxtaan yéen ne kat suñu borom lim yor da koy maye te ku ko ñaanut da lay mele kon kon moom nañ koy ñaan ci ci ci xéwalam yi suñ bi nag daal di dellu ca barabam ba timisel mu daal di julli daal di wax sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nga xam ne moom koo jege woon la ci yitte jaag ci sell gaag ci lépp rek xam-xam la mu daal di koy wax ne ko jàngal bopp suuratul baqara moom mu daal di koy jàng ma nga tàmbalee aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëñ bi daawul nangu ko tàmbalee lu may basmala bismillahi rahmaani rahim jë jëf joo ko def joo ko deful mu ne na nga ko delawaat defar ko loola kon mu daal di jàng daal di ne sax suñ suñ bi leeral na ca ne ci suñ Basiru mu wax leeral ne suñ bi nee na ci minu baaxadim di tax sama kër gi lu fi nekk lu nekk di sabbaal borom bi mooy luñ ci fi teg lu nekk di koy tege ci bismillahi rahmaani rahim di ko ci yëkkatee ci bismillahi rahmaani rahim kon lu am solo nga kon ba di jàng baqara ba ci ulaayika humul muflixuun sëñ bi daal na ko taxawal mu taxaw sëñ bi ne ko loolu day mooy melokaani way gëm yi waxut julli ñi de way gëm yi ko ñoom day dafa mel ne ay ndab maanaam maanaa tax ay tax yoo xam ne nee na dañ koo ubbi xam ne kaw gaa yi ubbi ko ñu ñu mën caa de- def dara lool loola mooy tax xam ne nangu na def nangu na it wattu lañ ca def mu ne ko mu daal di wax sibir lamin ne ko dollil mu daal di dolli ma ngay jàng ba ca walahum adabun azim sëñ bi ne ko taxawal mu taxaw sëñ bi ne ko loolu loolu de mooy melokaani ñi weddi yàlla nee na ñoom de ñoom dañoo mel ne ci ay ndab yoo xam ne dañoo tëj fépp mooy nu ko nu ko wolof di waxati tax la ci topp ab yeej waaw mu ne ko dafa mel ne ab yeej xale moom nanguwul def dara lépp pëtëju ñooñu kon kon moom seen mbir kon kon moom noppi nañ ca waa koo xam ne ko nag dolli si si bu lam jóg di jàngal ba àgg ca wama yuxaadicuuna illa anfusahum wa ma yashcuruun waaye koy taxawloon ne ko ne ko loolu day mooy melokaani naafiq yi suñu iblaat nag mas naa def waxtaan bi mu soog a toog xale ci xilaafa gi jëm Ndakaaru ak ak ngan daal ne mu melokaani naafiq day mat naa waxtaaneen ndax kenn ku ne ci noonu boo nekkoon naafiq nga mu jaral ko jël jaasi baw yat kon nag fexe fexe ba xam melokaan yi ba doo ca bokk kon mat na ko mu ne ko moom sëñ bi daal di ne ko moom day kon moom nanguwul def dara te du ñoŋal dara daal ne sëñ bi nag daal di wax ne ah ak yéete am na ci suñu borom li wax ne yu'minuuna bimaa unzila ilayka nee na suñ suñu borom lam ci jublu mooy alxuraan kon moom woy gëm yëpp te danañ gëm ne alxuraan dëgg la kon moom coppiku du ci am mukk mukk ci àdduna kama unzila min qablika nee na yaa lam ci jublu mooy téere yi nga xam ne ñoo ñoo jëkkoon alxuraan yooyu yëpp kon way aji gëm ji da ko war a gëm fi mu nekk loola dëgg la donte ne ne nekkatu fi nag léegi mu ne kon xikma bi suñu borom di tuddi loolu nee na xikma ba bokk na ca tere parparloo ñi nga xam ne amee na ca yahud ya ak nasaan ya maa gën la maa gën la diine diw maa gën la diw nee na sëñ bi daal di fatu ba ba waxtu gee wu mujj ñëw mu julli daal di delluwaat ba fajar ñëw mu ñëw julli nee na julli googu moom la mujj julli ak nit ñi foofu waxtaan wii soxna Fatou Samba Diop nee na ma bokkoon ci umatul mu'minin umriji yi moo fi mujj moom nee na sëñ bi mi ngi ko doon waxtaane ca penkob njàkkay mën a njëriñ bi ci biir kër ga jàkk jooju sëñ Seex yeesalaat nee nee na fa la ko defee nee na nee na sax ba mu toogee dañoo wut ay si fabal nee na wërale ko ko waaw kon kon foofa la soxna na fa sàmba nee na nee na foofa fa la ko waxee am na am na lu lu mu wax jigéen ñi moom soxna fa sàmba nee na sëñ bi wax na leen ni ah yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ne yéen dafay tax a mucc jekki noppi liggéey loo am doy la ko nee na sëñ bi dénkoon na leen loolu ne yéen ngi jëm ci jamono joo xam ne yéen dafay tax a mucc jekki noppi liggéey loo am loo am doy la ko ba loola la la amee kon sëñ bi daal di làqu làqu na ci moom ma nga ci biir kër ga si bilam jëm moom la woloon ne ko nag saa su wax bu jotee na nga noddu si bilam jëm ci bitti néeg bi lay nekk noddu sëñ bi sëñ bi daal di waaj mu leqaam sëñ bi julli ku ne xam ne ne waxoon na ci ca ci ca ñëbbin weer wi ne woon na kat alal ji fi ñëw ci at mi man bukk ma ja xam ne addi yi dikk sëñ bi du ko nangoo mbolaal ne nee na moom ad alal alal alal jooju moom bukk ca maanaam mu xaram boobu bu teraw alal ji di koy teew rek nee na bukkatu ca kon mu ngay junjoo xamante ne àgg na sax ba ci wax ne ne kat man kat wàccee nañu ma ci ma ci jaamu yàlla yi julleeg woro yooyu nga xam ne ko kon lay kon ma ngay junj ci ba tey ndax nit ki mënu fee nekk ci ci kaw suuf te jaamu nguur sa borom ma ma ngay juñ juñ sax banaan sax sama gëm yàlla day mat na sëkk sama sama salaax sama jiwénu ngir mat na sëkk loolu lépp kon ma ngay juñ ne kon mat na alyawma akmaltu lakum diinakum ji rek lay junj ci ne yonent bi alayhi salaam lépp mat na ne nee na nag ba ba loolu amee nag Cheikh Moussa booba moom néewu fa ma nga mi mi ngi ci ab tukki booba ñaaxeen la toll ba mu def toll la ñaaxeen di di leen ci gànna ji sama maam di ñuy wax soxna Aminata Diop moom sëñ Mor Dior njëkk pinc nee na Cheikh Moussa bi mu nekkee ci gan gi ba digg bëccëg fi mu toog ci néeg bi ab caali dugg ci néeg bi dal ci ci kaw luppam yu tëdd ya nee na Cheikh Moussa daal ni bërit daal di ne caali bi kat am na lu muy wax ne ko moo ne day ñu ngi toll ci jaqar bi bi ci nii wëlbati ci nii mu ne waaw waaye day dem mu daal di dem jëm jaareem jóge ñaaxeen ba ak si gaawaan kër sëñ gaawaan moom sa ànta ba mu ak seen a gaawaan ngir li mu yëg ci baatin ak xew-xew ba booba booba mag ñi soo agsee ci pénc dangay wàcc ci pénc ma yëglu kooka daal di waaj nu mu lay nu mu lay tërale ak defar kër ga suñ gaaw a nekk ca ci wàccaay ba suñ bi xanaa mu xaw a dib suñ bi bi son soit daal di wax ne suñu Cheikh gaawaan génnee nee lañ ko dem naa daal di dem jareem ba mu ñëwee takkusaan waxtu takkusaan la ñëw maanaam ba mu ñëwee daal di wax laaj sëñ bi maanaam ku ci ku ci xam dara maanaam nga xam ne guddi googa këram googu nekk ca nekk ca njaareem fa la nekkoon maanaam sëñ bi la njëb daal di dikk ne ko noonu noonu day sëñ bi fan yëpp gisuñu ko maanaam ca biir lay nekk rek kon mu daal di di laaj suñ Cheikh Fatak ku Diop ñun mi nga xam ne moom moo ne woon ca biir suñ Cheikh Fatak ku Diop maanaam ah booba de kenn kenn xamu ci dara lu may xanaa ku ca am kasfu nee na te suñ Cheikh Fatak ku Diop moom boo boo moo nekk ci buntu kees gi gi suñ bi nekk mu daal di wax ne man day gisoon naa ko. mu ci ci mujj bi ko mujj gisee mooy suba altine ji gis naa ko ndax nee na nee na nee na bi bi nga xamee ne jant jant sono nag nee na Cheikh Moustapha daal daal di ñëw ànd ak sëñ Abdoulahi Diop Léone mooy nijaay sëñ sëñ Bésir rek ak sëñ Cheikh Xarijane waaw mbokk si sëñ Bachir yooyu sëñ Maxtaar Silla moom nga xam ne moom la si jox waxoon ne ko Maxtaar Silla fu ma man di nekk sëñ nga ma faa fekk kon loolu dana am njëriñ ci moo xif bii loolu ak si ak si Lamin Jóob Dagana ñi ñoom ba njëkkee romb nañ ay donga si jox fa xataaw bokk na ci donga yañ romb daal di ñu daal di laaj sëñ Cheikh Fatako sëñ Cheikh Fatako daal leen di joxeen barab ba nee na ba ñëwee sëñ Cheikh Fatako sëñ Cheikh Soxla laaj sëñ Cheikh Fatako ne ko sëñ bi anam nee na ma daal leen di gunge ba ca buntu kees gi sëñ bi ne ma leen buntu bi day ci la duggoon ci la duggi woon ci la nga xam ne mooy sama tegtal ca loola mooy kat maanaam léegi ba ba mu ci duggee sëriñ Ibnu Amar sëriñ Ibnu Amar nee na booba dafa demoon ca teen ba ngir root si si si Ibnu Amar bokk na ci booba tutànk yi nga xam ne ñoo ñoo lekk ñoo nekk ci ci ci loxoy sëriñ Seex Fatako nee na bi bi mu laataa di jóge ca dellu ca teen ba nag nee na jaar ci daara ji nee na sëñ bi jaar na ci tànkam. boo nga xam ne ne ndë jeexee di ndëggul sëñ bi far na jeexee ci ndëgguy sëñ sëñ Ibnu Amar moomu kon nga xam ne ko kon kat ko kon kon jaar na ko daal di dugg ca kees ga nee na ma xam ne ne kon sëñ bi kon bisu altine la dugg ci ci kees gi waaye nag sëñ Ibnu Amar moom gisu ko nee na nee na ma jàpp ne kat bunt bi kon dafa tëju ndax nee na wutoon loolu kon aw ñam kon man maa ko koy indil sëñ bi nekk foofu nee na nag ma daal di lal man si si si si si si jafa fa ta koy wax nee na ma lal basang ci buntu bi ngir bu sëñ bi dee ci génn faaw mu yeema nee na nee na ma ma ma fanaan foofa guddi ci gépp waaye dégguma lu yëngu sëñ sax fa ta koy wax bi jant bi sooyee am na kenn ci bëkk néeg yi moom dañ koy tudde si Maxtaar Sylla moomu ñëw moom moo daa yor lamp bi lamp bi moo ko ko daa moo jëla daa def pétrole ba di ko taal nee na mu taalal sëñ bi guddi altina ja mu taalal ko lamp ba nee na daal di fay nee jàng tuuti sëñ bi daal di koy digal ne ko mu dellu sama bàyyi nee na si ma resi nee na ko li ma mujj wax ak sëñ bi ba ma ñëwee fii moom ba jub ko sëñ bi ne ma kooku ku mu ma ne ko Maxtaar Sylla nee na ñu ne allahu akbar nodd mu ne ma lu mu doon ma ne ko xanaa nodd mu ne ma kon daw leen jëm ca nee na loolu laa mujj wax moom xam ne loolu mooy li mu li sëñ bi mujj wax ak ak nit ñi ba suba jotee sëñ Maxtaar Sylla moom mu ñëw nee na nee na mu mu fekk sëñ bi génn ca kees googu dugg ci ca geneen lool loola moom bisub altine ji dañu waxoon ne sëñ Cheikh Fatta ko nee na sëñ maanaam sëñ Ibnu Amar ba mu jaaree foofee te sëñ bi aw ca dugg ya nee na nag ne Cheikh Moustapha ne am na ñu wax ne sax kat sëñ Wasi la moom booba xam ne mbir ma waaye booba xanaa dafa ñu ñu mu koo wax ndax suñu wasiila kon moom suñu doxal ne ko fu ma ne sañ nga nga nga faa fekk nee na bisu taata nag ba mu dikkee nee na suñu wasiila dikk na ñi nga xam ne moo doon aadaam mu daal di woo mu daal taxaw lu yàgg ngir jaaxle ndax dana dégg ab yëngu wala dana gis dara ba takkusaan jot mu daal di dem ci Cheikh Mamadou Moussa ne ko wax ko daal la lam xam. sëñ Cheikh Moustapha ne ko kon kon nañ dem ndax ñu xam li xew mu daal di dellu moom sëñ Maxtaar Sylla ca kër ga mu daal di fay dajeeg ñaari al amin yi nii al sëñ ma Lamin Jóob Dagana tun naa mu daje fa sëñ ma Lamin Jóob Dagana mu laaj ko ne ko loo xam ci sëñ bi sëñ ma Lamin Jóob daal di koy wax lam xam ci waaye mu ne ko man de xam naa fam ne waaye mënuma faa àgg ndax man de xam naa ci lu ngeen xamul kon kon kon xamoon na ko xamoon na kon la xew sëñ Lamin Jóob daal di jaaxle ci waxee sëñ Maxtaar Sylla bi mu xaar tuuti daal di di ne ko waaw ndax sëñ bi kon nekkul ci aaday xalawoo yi muy dugg rek xam ne day dugg moom ab yàgg te te kenn du ko fa fekk wala lan la sëñ bi sëñ Lamin Jóob ne ko kon nañ dellu kon ci Cheikh Moustapha booba jant ngay bëgg nga sox ba mu dikkee fekk Cheikh Moustapha maanaam Cheikh Cheikh Moustapha daal di génn ci lu gaaw daal daal di ne ko kon nag lu ngeen xam ci kon lu lu ci seen xaaj ci sëñ bi ak fan la ne sëñ Maxtaar Sylla la bëkk nekk ne ko man de xam naa barab ba mu nekk waaye man de dama ragal suñ borom mbugaleem mbugal ma ci may wan kenn fam ne sama làmmiñ de mënut a tudd la ma xam Cheikh Moustapha daal di wax ne sëñ Mat Lamin Jóob yow ban xaar nga am mu daal di wax ne man de sama xaar mooy xaatub sëñ Maxtaar Sylla rek Cheikh Moustapha daal leen waaw kon yéen bu leen ragal laa taxafa indi nii maxakuma bu leen ragal mag yeneen ñooy ànd kon nañ dem kon ca barab ba daal di di dem ñu ñu dem for dëppoo ci àgg bu ñu agsee suñu fa tàggu nee na sax day jikko njóobeen sax dugg na ma jënd ndax Cheikh Moustapha agsee dana ma yow ma ngaa taxaw foofu ñoom ñu daal di wéy ba ñu ñëwee ñu ñu gis ko sëñ Maxtaar Sylla la sëñ bi wax ne ko jiitul yow mi nga xam ne sëñ bi neewoon na fa mu fa mu nekk sañ ko fa fekk xam ne ma nga yor làmp ba bon bañ àggee ci buntu ba sëñ Maxtaar Sylla daal di gis sëñ bi nee na mu daal mu daal di daw ak lamp ba jëm ci jëm ci ginnaaw bunt ba Cheikh Moussa boobu moom ma nga ca buntu kees gi su ma si mu dugg na ci buntu néeg ba ba gis ko daal di waaye mu tiit daal di daw moom sëñ Cheikh Moussa ak sëñ Lam Diop ñu ngi koy xaar ci ci buntu kees ga nee na ñu ngi seen sëñ bi mu ngi tëdd ci ak basan rom moom mu jaan nga tëdd nee na ñaari tànk yaa ngi jubloo ak punt bi ma nga tëdd diggante ñaari ñaari njegenaay yoo xam ne ay téere la la feese téere benn njegenaay yi nga xam ne moo def téere yi yenn yi ma nga ca kanamam yi ci des ma nga ca ginnaawam xam ne dafa mel ne daal ma ngay ma ngay waqanteeg borom bi ci naa ko yaa ayyuhan nafsul mutma'inna irji'i ilaa rabbiki raadiyatan mardiya yow bakkan bu tëdd bi dellu ci sa borom di ku ñu di aji gërëm lu ba noppi ñu gërëm la loolu lu am solo la loolu moom yëmbut booba bisub altine la ca digg bëccëg mooy waxtu wi ñu toll waxtu tisbaar nee na boobu day ngelaw am na lu bari ak taw bu bari loolu bokk ci dogal lu yàlla bi yu bari nag ci mbooloo mi ci mag ñi ne ñoo de loolu xam naa da tegtalob la suñ baa suñ baa ngi dellu ci borom bi ba ñu gisee nag ñoom Cheikh Moustapha ak suñu rel ak sëñ Mad Lamin yëpp ñu gis ko nee na suñ laa bi ak suñu rasil la nee na ñu daal di daw ñoom dem ba ca ginnaawu néeg ba nee na nag sëqat nañ maanaa yëngu waaye di gis ñu dégguñu dara tëggin ndax tëggin ne xadra ba ba ñoom la ñuy xool sëñ Lamin Jóob daal di ne assalaamu alayka yaa xadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiya anhu ma ngay nuyu sëñ bi waaye kenn wuyuwul sëñ ma lam sëñ ma lam Jóob daal ne sëñ Mataar indil ma lamp bi jox ko lamp bi nangu ko jox lamp bi ngir tiitaange mu ne ko waaw mu ne mu ne simila mi soo dugalee sa loxo boo lambee da nga am loo daj simila mi daal di dugal loxom lam mu làmb loxom dal tegu ci kaw ndëgguy sëñ bi fa di jëlaanu mu daal di koy raay daal di wax ne assalaamu aleyka ayuha cheikh wa rahmatullahi wa barakaatu waaye kenn wuyuwut mu daal di dellu moo ko sëñ Maxtaar ba ci buntu maanaam naa léegi kees gi daal di wax Cheikh Moustapha lañ def Cheikh Moustapha nee na booba rek fàq ba leen xalifatu si si loolu loolu Cheikh Moustapha moo ko moo ko bind. xam ne kon kon ci saasi kon Cheikh Moustapha kon yëg na ne kon kon ka léegi muy xalifa kon muy xalifa kon kon kon sëñ bi. moo tax mu ne kon fàq ba leen xalifa loolu loolu ci mbindum loo xam Cheikh Moustapha la. nee na mu daal di mu daal mu daal di mu daal di jëm ca buntu ba ba mu demee mu daal di wax ne si matasil la jox ma làmp bi nee na boobu booba néeg ba dafa lëndëm nee na mu daal koy jox làmp ba ndax si matasil la donte ne donte ne tiitoon na ba nangoo jox jox si matasil waaye nee nee na suñu koo ñàkk a jox làmp ba ndax kiifteef ga nee na si si si am daal di ne fa la mara al xalifata xajatal xawus radiyallahu anhu kon si si si soxna yi ci loxoom nee na ba xalifa bi gisee alxawusu moom si xadim radiyallahu anhu nee na tàmbali na ca tànk ya ca ndëggu ya di ko raay ba raay jëmm yëpp nee na ba ca dënd ba nee na mu daal di wax daal di tudd yàlla allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah nee na daal di geesu ñaari gaayam yooyee mu sëñ Mata Silla ak sëñ Mat Lamin Jóob mu daal di digal sëñ Mat Lamin Jóob ne kon yow toogal fi yow taqoog sëñ bi daal di daal di di ne ko toogal ba ma dikk yow daal di digal sëñ Mata Silla ne ko mu wool ko maanaam léegi nodd dukat ba Muhammad ibnu Abdurahman at-Tandaxi ci soofay Mauritanie gi la te gën a siiw ci Mouhamad Cheikh Mouhamad Touba ngir leen lim daa jàng ci xasida ku sëñ Tuubaa fonkoon la nee na nee na mu leen maa ngi dem ca Kumana Kumana sekkal njëriñ bi nee na mu ne bi noddukat bi dikkee te mooy si si sëñ Mouhamad Touba mu ne leen bu dikkee na ngeen góorgóorlu ci waajal sëñ bi jëkk may ñëw sëñ bi la Jóob ne action soi ñu ne kat fekkoon nañ ko mu set wicc laab waaye xam ne nee na ñu gën koo laabal ñu sang ko nee na fekk nañ ko bagage yëpp nag maanaam làmbaay yaag maraani yaag parfum yañ ko gëtt gañ ko war a defee yëpp fekk nañ ko ci sëñ bi waajal nañ ko ba teg ko foofa nee na ñu waajale ko ci juróomi mbalaan ako kaala ako traxlaay Cheikh Moussa ak si mbilam jëb ñuy wax loolu nee na loolu lépp ñu ngi ko defee ci ci néeg boobu nga xam ne ci la làqoo Cheikh Moussa da ci mbindam mu daal di ne xalifa bi dem moo ko moom Cheikh Moussa moo ko Cheikh Mouhamadou du Habibullah dañ ko tuddee Cheikh Balla Coro moom moo di rakki sëñ bi ñaana ñu dem ca commandant ba ñu daal koy wax la xew mu daal di mu daal di ñëw ànd ak ñoom ci guddi gi nag la nee na ba ñëwee daal di ñëw xool sëñ bi nee na nee na ñaa ngay awee ci buntub bu sowu ba nee na foofa buntu sowu ba ci ca la nee na commandant ba wàcc nee na sëñ bi Cheikh Moussa daal di dem moom ca buntu penku ba mu daal di dugg fa ba mu daal digal sëñ Matasil la mu dem ci buntu sowu ba ngir mu ubbi ko na ngir commandant bi dugg ñëw ci sëñ bi nee na ba mu duggee ba xam li xew mu daal di digal Cheikh Moussa ak sëñ ak ak maam Cheikh Ibrahim ci ñu denc ko fu ñu fu ñu soob daal di wax ne man kat danaa wax ami ñëw ndar danaa ko wax ci ci ci mbir mi waaye nag li ma jot na mooy ngeen ba ko ba suba Cheikh Moussa ne ko déedéet ndax suñ ko defee ba suba dana andi yàqu yu bari ak ak yëngu bu bari ci ci mbooloo mi kon dañu mën a xaar bu suba commandant ba daal di na nangu loolu bokk nañ ca lañ naxe ko commandant ba sëñ bi dénkoon na ko Cheikh Moussa ne ko bu bu ñu la gaa ci gis ma na nga da nga leen yóbbu ca fa xaalis ba ne nga wan leen ko Cheikh Moussa commandant ñëwee dafa jaar je fi nga xam ne fa xaalis ba ne si si si fa tam mi ngi ko nekk di nga xamante ne ay xaalis kayit la ñu def ko ci ay dollu yu bari def ko ci ay ay jaaw commandant bi laaj ne waaw xaalis bi ñaata la ñu ne ko mu koy matu ko yóbbul ñu ko nan fee ndax mën naa am ci yëngu yi dan na na bari commandant ba xam ne kon dajant lool xaalis bu bare bari ci ay gaal yoo xam ne xamuñu ñu lim ba kooku moom kon commandant ba day sant ca yóbbu ko nee na ñu daal di def loolu nee na commandant bi daal di génn ànd ak ànd ak ànd ak Cheikh Moussa ñëw ci buntu sow bi daal di commandant bi daal di dellu moom Cheikh Moussa xalifa bi Cheikh Moussa bi nee na nee na mu daal di digal si Mourad Sylla mu daal di koy wool Cheikh Mahmadul Bachir ba mu ñëwee mu daal di koy digal mu indi ab oto ca buntub penku ba nee na daal di wut ak kees daal di koy daal di koy daal fa waa kiis am mbalaan daal kon wala mbajji daal ko koy dal daal koy teg ci kaw lal bi ñu daal di digal ki nga xam ne moom mooy daal ci oto bi mu gën a na jege si ci buntu penku bi te bañ a tàllam ndax nit ñi di ko yëg nee na booba nee na waxtu guddi bi booba sulusaani ñetteelu xaaju guddi gi ko booba mooy sori su ma daal si la daal di génn mu daal di gis yenn ci dongo yu tutànk yi ci oto ba mu ragal ñu ñu yëngu ba kenn dégg mbir mi daal di ne waaw ah buntub soow ba de buntub soow bi day am na fa ay bagages yu fa ne te ngeen faa dem xo- toxal ko ñu daal di dem ci buntub soow ba daa ne kon oto ba ke- kenn nekkatu fa lu may tabakat ba ak mbooloo mi nga xam ne ñooy ànd ak moom ñu daal di dugal kees ga ca biir oto ba ci lu lu gaaw sama Basiru daal di nekk ca kanam oto ba ak ak sëñ Mat Laamin Jóob ak sëñ Maxtaar Silla càmmoñam ak sëñ Mouhamadou Jujj Tuubaa mooy ak tondax yi moomee ca gannaaw nee na ñu daal di digal nag borom oto bi nekkoon na gaaw te bañ a taal lamp bi ba génn dëkk bi ba mu génnee dëkk bi daal di tàmbali nag taal lamp ba ñuy dox booba ne nee na sëñ xaalis yi nee na dégg naa ci moo wax ca làmmiñam ne buñ tolloo buñ génnee ci kër gi am bagage suñu fàtte ba ñëw foofu ci am na benn phrase bu nekk ci kanam penc mi yarim nee na foofu la oto ba taxaw di di di xaar di xaar nee na nee mu mën a sax barkeb loolaa tax ndox moom mais ci ci ci ci feeñ fa ndox moom mu neex lool te mu ne bari na lool sax sëñ xaalisa yi nee na dégg nañ sëñ bi ñetti yoon yu mu wax bismillaahi bu nga teg ci oto ba dégg nañ mu wax ne bismillaahi bañ taxawee ca foofa ca foofee forage ba ne dégg nañ wax bismillaahi bañ koy yoor ca barab ba dégg nañ mu wax bismillaahi sëñ xaalisa yi dégg naa mu wax ko ci làmmiñam bañ àggee Tuubaa nee na alladi tayyabaha Allaahu suuf suuf si tedd soosu bokkoon na ca dogalub yàlla ak ak tawfiixam dara dogalul leen ci yoon wi dañoo daal ne coow rek ba ba ba ak si Tuubaa gisuñu kenn sax koo xam ne dana yëg ci xabar ci xabar ba dara ba ñu àggee nag Tuubaa nee na jaarewuñ guñ ko ci bunt yi nga xamoon ndax ndax bañ kenn na xam ko nee na nee na yàlla di di wut nag ab seng senge ko daal di koy wutal bunt daal di koy wutal ak kees daal ko fay dugal la ko jiitu nañu xam ne suñu foofu néeg boobu néeg boobu mu ñibbisee Tuubaa ca njëriñ ba mu ko defaree ba noppi bu liggéey ba noppi daa wax ne dongo ya suñ bi dafaa dem ànd ak Seex Mustafaa julli fa ay rakka def fa ay ñaan daal ni kat seytaane kat dafay duggoon neen fii moom laa doo tojtal nga xam ne kon kon seytaane mbiram jafe na fii ci fii ci Tuubaa dafa waxoon ne bu ñu bu ñu noppee ne nañ ko wutal seng boo xam ne senge ko ak kees goo xam ne doo am bunt ndax nee na daa bañ ku dul julli tiim ko ak kuy tox sigaret kuy kuy tox pon xam ne wax nañ ñoo ñuy liggéey jumaa ji ci ci kanam daa bañ ñu tiim ko xam ne loola koy waaj doloon na ko bañ ak bañ ak seen ak Tuubaa ca dëkk ba Cheikh Moustapha waxoon nañ ñu yónnee waaye di di di yónni sëñ sëñ Abdullahi ibnu Ibrahima Diop al-Kunti yi daal ko yónni ca Cheikh Ibrahima Fati ca Darou Mouhty bañ agsee Darou Mouhty ci boo demee ca bayti ci ca kër si sëñ Maam Cerno am na ay guy yu fa nekk nee nañu keroog Maam Cerno waaj na ba toog ca guy ga di xaar ndaw li loolu kon xadis ko koy wax nee na nee na daal di di dem daal di daal di di yónni sëñ boobu moom it ne ko demal ca Cheikh Mbacke Bousso ca Gédé su su su sëñ Mbacke Bousso moom it nañu ba ba ba agsee fekk nañ ko mu mu waaj ba jekk di xaar ndaw li kon kon kon xadis kon moom it xanaa moo ko. koy wax daal di yónnee ba tey ci sëñ Fallu booba mi ngi nindi yi rek nindi guu rek soriwut moom it daal di ko koy ci wax daal di yónnee waat ca sëñ Abdourahmane Lo ca Daaru Alim Xabir moom it soriwut mu mu daal di ñëw daal di di yónnee ca ca Ahmadou Ndumbe Mbacke murid murid mag ba moom it mu daal ñëw daal di di yónnee nag ca murid bu mag ba lool nga xam ne suñu suñu ay bu mbakki ilimaan fonk na ko lool daa wax ne suñ bi day ñu ñu ñu bari ñëw ci moom am na ci ñoo xam ne indaale wuñ dara waaye suñu mat laa bi ngay moom bokk na ci ñu indaale dara ñoom si si Bilaamin Gaye Firdawsi booba ma nga ca dëkkam ba fi Firdawsi su wut téeméeri juum xanaa amatu ko ñu ñu ñu ñooñu ñooñu ñëpp yàlla dogal ñu daal di daje nag ci lu gàtt rek te booba wa- ci warwaay booba yombut ba ñu ba ñu agsee ba ñu agsee ba ñu teewee ñu daal di waxtaan ak ak ñi fa des daal di wax leen kat ne leen nag fu ñu ko war a def am na ko wax ca ñoom kese la boo xam ne mu ne su ko nekk li ndax daa biire te ku ko xamut mën na koo taay wiile ñu du ñu du noona kooku kooku daal di wax ne man de gisoon naa sëñ sëñ bi di di tudd fii dara daal di joxe diggante ñaari garab yi béb ga ak new ga loolu yàlla dogal na may béb ga ak new ga ga newoon ci foofa li- am naa ci ay ay dam yi dara su soxna Fatou Samba Diop moo joxoon nga ngir rek bu ëllëgee muy archive di di barkeelu bu ëllëg ñaari garab yi mu mu mu ne day kooka ba sëñ bi waxee loola foofa dara kooka gu kooka kilifa googa mag mooma daa jàmbaare lool ba ba daal di koy ci ci- ci gas ba mu weesu ti- ba- ba ñëw ci conco la mu mu xamtu ko koo kookaa wax loola sëñ bi da- daanaa dégg muy wax fii dara maanaam foofa yi la la sëñ bi tuddi woon jannatu sajaratu sajaratu saada foofa foofa la la ko tuddi woon xam naa ma maa béy ne min bëri yi jë- jë- jë- jë- jënt bu waxoon rek raw raw dunu miin yaa du janna kon kon nee nañ yàlla di tàng loola xam ne foo nga nga- nga xam ne foofa Cheikh Moussa nee na foofa kat ndekete sax mooy nee na jullikaayam bu bu jëkk ba jëkk nga xam ne fa la jullee woon Aydul Adha ca ji si suñ jë ba muy tukki ci ci géej gi julli tabaski ka fa mu ko jullee woon te te gaa yi doon xëccoo jarba oto bi tàngatee naan danaa ko lal foo xam ne kenn du ko xëccoo man nee na ñu ñu daal di toppatoo barab ba ci ci digg maanaam léegi mihrab ba fa la fa lañ ko def kon kon kon ginnaaw bi kon bi bi ñuy tabax jumaa ji dañ koo dañ koo soowule foofa yaa ñu ñu daal di tàmbali toppatoo barab ba nee na ki jëkk a to ki jëkk a gas ca barab ba mooy suñu Abdullahi Jóob alkuuki moomu Sulay Jóob moomu ginnaaw ba sëñ Mahmoud Jaxate ginnaaw ba sëñ Ibrahima Ndaw ñoom ci ci ñu jëkk a ànd ak sëñ bi lañ ànd nañ ko jë- jëkk jëkk géej gi yàgg sëñ Mbàkke Buso nag moo taxaw jëmm ja moo wàcc ca barab ba sëñ Lamin Gay Firdawsi ànd ak moom nee na ñu jotti leen ko ñaari gaa yooyee pandaxi yoog sëñ Lamin Jóob ñu daal di leen koy jottali ñu daal di ñu lal ca barab ba laytaay noonu ci Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam noonu ñu ko waxee woon ci xadis rek laal ko laytaay ja ba noppi daal di koy génnewaat ginnaaw bañ wutalee nge- ngegenaay ñu dal di tëj barab ba ci ay alluwooy weñ ay seng ak ba ak ak i dénk ak ak luñ ca lal ba nga xam ne ndox buñ ko so- ci sotti woon du ak sa ci jëmm ja ñu ñu ñu jàll ci sotti nag suuf nag ba ñu noppee wax nañ ne ba ñu laataa noppi ca loola noddu fajar jot na ba ñu ba ñu noddee gaa yi ne fa yëlpandi loola lépp daal di dem ca jëriñ suñ bi digaloon mooy lu ngeen nekk lu mu baax baax ci ngeen déggee nodd gi kon dégg ngeen lu ko gën daw leen jëm ja Cheikh Mouhamad Touba Cheikh Mouhamad Atalaxi daal di gën mu noddu suñ bakki buso daal di jiite julli ga ñu ñu ba ba ñëppee nag ci lañ delloowaat ca barab ba nag di ko toppatoowaat nee nag kon kon foofee nag kon si si yoon soine foofee nag kat mooy mooy kër yi nga xam ne sëñ bi ba mu ba mu ñëwee Touba mbaaraam foofa fee fee la ko defoon kon kon kon foofa mooy këram gu njëkk foofa ca Touba foofa it mooy këram gu mujj nee na nee na nee na kon Cheikh Cheikh maam Thierno kon ba mu ñëwee daal ne yónnee kon kon ca Cheikh joxe suñ Fallu ak suñ Mbàkke Buso ñu taxawal loola ba ñu noppee kon ñaari Mat Lamin yi suñ Mat Lamin Géey ak suñ Mat Lamin Jóob ak ñe ak ñe ñe ca topp bañ ko toppatoo ba noppi daal di daal di koy baaral def ko def ko ab seng muy muy muy barag boobu yi nga xam ne suñ suñ Fallu daan wax naan borom barag bi nee na ba noppee ca barag ba ba noppi kon ba julli nag ba noppi daal dinañu dellu nga xam ne ne kon nee na nee na bañ noppee nee na Cheikh Ibra Faati nag daal dina nay wax waxante ak mbooloo ma daal leen di ñaaxaar ci ci yàlla ak suñ bi ñaar nag ñu ñu jaari nag ñu bis nag jaareem ak Cheikh Cheikh Ibra Faati xamante ne booba nag moom mooy mooy jëriñ ju mag ja mu daal di ñëw nag daal di koy wax soxna yi soxna fa tàkkul la jóob la la la woolu wax ko la xew su su maam Cheikh fa takku moomu daal di wax suñ ibnu amar ne kon teen bi ne ci biir kër jigéen ñi nañ ca teg aw seng tëj ko ba noppi am ko toog ci kaw ngir booba nee ragal naa jigéen ñi yëngu baag yooya mën nañ ca dugg kon loolu kon mooy kon mbir ma sëñ nee na bi waa Njaareem xëy ñoom kër gu mag li leen xamal yëf yi rek dañoo xëy daal gis quartier gi fees dell ñu jaar yi fee fee fees dell ci ci kër gi ñoo xam ne kon kat am na loolu lu xew seen soi nag ne kon bu laaj coow laaj kalan-kalan jël yëngu ba nee na bu laaj loolu noonu ku ne xam ne ne yëngu ba dana dana bari loolu waaye mu ne kat Cheikh Moussa ne waaye gars yi de yëngu bi da bari ne waaye bu ñu fàttaliku woon rek la yàlla waxoon sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa ma muhammadun illa rasulun xad xarat min qablihi rusul afa immaata ba ba ca innaka mayitun wa innahum mayitun ne ko yow muhammad day yaa ngi nii waaye ay yonent jiitu woon nañu la kon anañu dem nañ yow mii kat da dangay xaar dem ñoom ñi ne ñi nga xam ne ñoo la warit dañuy dem kon nee na bu ñu xamoon loolu xam nañu xel ne kon kat àddina ko kon day yeex mu def yëpp fii jóg nee na kon loolu kon day suñ ko bayoon xel yëf yi dana woyof ci ñoom loolu te it bu bu ñu fàttaliku woon la sëñ bi waxoon ne xaajatu min al xalaa'iqi ilal xallaaqi man day gàdday naa jóge ci bindee fi jëm ci aji bind ja kon day danañ wër ci nga ne loola ba mu koy wax booba day tàgge boppam rek waaye nag jumaa yaqiwuhaa illa al-aalimuun mu ne waaye si som soi ne ah waaye loolu ki kenn du ko xam lu may way xam ya Isaa Jaan masula yi ba mu wàccee sahaaba yi ñu bari di jóg ca loola Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu wa anhum ajmain moom di jooy gaa yi laaj ko lu war mu ne ah kon de dafa mel ne kon tàgge yonent bi la alayhi salaatu wasalaam kon kat ci jumaa yaqiwuhaa illa al-aalimuun subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin